bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant euh, ci teewaayu Serigne Cheikh Mbacke mu Serigne Abdou Latif ak euh, ci jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah Serigne si Diop jublu gi nag mooy ndigal loo xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacke joxe na ko ñu war koo door ajjuma ji ñu jëm incha allah ñu war ko leeral nan la ko Serigne bi jubloo ak nan la bëgg ñu taxawee ci ba kenn ku ci ne rawatina ñi nga xam ne ñoo yeewoo ci dëkk bu tedd bi di Touba xam lan moo ji seen taxawaay kon dinañ jox sëriñ Cheikh Mbacke mu Serigne Abdou Latif mu leeral ndigal loolu ni ko sëriñ bi euh, jëmee ci taalibe yi ba kenn ku ci nekk xam ci li nga xam ne moo ji sa taxawaay. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi bokki taalibe yëpp. ñu jot ñu yóbbu Cheikh Mamadou Mountakha ñi nga xam ne mooy sunu lépp di sunu doyteef di sunu yaakaar mi ngi nuyu taalib yëpp di leen sant di leen gërëm naka jekk li jiital suñuy wax te moo nu koy waxloo mooy mi ngi sant taalib yëpp ci xam ne cofeel gi ko taalib yëpp amul ak doyloo gi ak yërëm ak yéene ji ak yàgg fi te ndax liggéey bi sëriñ bi da ko soxla waaye moom itam day wax ne cofeel gu tol noonu ak yërmande ji da amal yi cofeel gu amul fu muy yem moo xam ne yërmande da ko làmb yërmande ji lépp mi ngi dellu ci bëgg taalibe yi di xam ni ñuy jariñoo ci sëriñ bi waxtu ñu ne wu ne ñu ko ndimbal ci sëriñ bi di dolli ko tawfeexi sëriñ bi loolu waxtu ñu koy fàggul taalib yëpp di ko ñaanal xalaatam yëpp ak bëggam yëpp génn loolu yaari yëf na liggéey bi sëriñ bi dox na teel bi jëriñ jëriñ sëriñ bi nañu am tawfeexi sëriñ bi loolu mooy ak bëggam mooy yéenam mooy moom lay jàngal ci lay nekk di ko wane kon nag yàlla ci la jeg tawfeex sëriñ bi nuy tam defe ko nuyu sëriñ Muntaxa bëgg nu sëriñ bi yàlla tafeexal na ban man koo def yéen a jim nu yéen ngërëmul sëriñ bi sëriñ bi tafeexal na ban dañaa ngi tafeex ba baam ngërëmul sëriñ bi sëñ bi nag ci biir loolu dafa gis jamono yu xat lu sànq jamono yomb mu bëgg waxtu wu nekk ñu gën a dellu ci sëriñ bi moo xam ne daa gis ne waruñoo am benn jot waruñoo tal dara loolu sëriñ bi wax na ay waxam yu bari ba ci korig daaw bi ñu ko fàttali ko daa waxoon ne suñu yitte yëpp mooy ak nan am sëriñ bi man am sëriñ bi nag li gën a gaaw mooy julu sunu borom jublu sunu borom wan gannaaw àdduna moo ne nag wan gannaaw àdduna du tax a bàyyi lekk du tax a naan du tax a sol mbubb waaye su sunu xol dañuy dégmal sunu borom genn ci lépp àdduna ak li ci biiram ak i ak i naxeem ak i bu ñu jubóo suñu morom nag ci lay mën a mën a am sëriñ bi nga xam ne mu ngi dellusiwaat ci bëgg taalibe yi dëgmal sëriñ bi rek bañ am leneen bañ a taal dara loolu sëriñ bi ci loolu nag moo xam ne daa bëggoon fan yii parce que yéene dundalaat nan ko daan nan ko daan dundale man ko daaw daa jëkk bu nekk woote na fi bisub xasida bisub xasida yi sax weesu na loolu na loolu lépp waaye daaw da cee boloon daaw jég da cee boloon bisub zikrullah defoon ko vingt quatre heures daaw moom defoon ko douze heures huit heures ci suba huit heures ci la bëgg ñu dina laat ko ba mu waxee ni ko xalaat ak ni mu ko bëggee ba noppi nag ne woon joxoon na ndigal ne mag sëñ Musayn ak na ñaan dem ci saabas ñu wax ko ni ko bëggee buñ ci bañ juboo ji nu ñëw def yëgle bi taalibe yëpp yëg ko juboo gi moom mën a ndax noonu itam lim la sëriñ bi rek dañ koy maa def amul amul genn bëggul sëriñ bi terul dara loolu sëriñ bi mbir mu nekk sëriñ bi la cay so xool nu ko sëriñ bëggee noonu la koy defee noonu itam mbir mu nekk moom lañ ciy xool nu ko bëggee noon la koy sante nu defee ko na ban waxtaan itam la waxoon rek la lan bëgg gën a leeral daa waxoon ne dana bëgg ban àggee ci ajuma ji nu jëm def ko bis boo xam ne si kar lañuy tudd yàlla dañuy te njëkke bay fay def ko tàmbale huit heures ci suba ba dix heures ñaari waxtu bi bis bi buñ nappee dañuy def jàng xasiida ak jàng alxuraan jàng ko dix heures ba une heure laf waajal julli gi buñ jullee ba noppi ñu dallu xewlu ba ñeenti waxtu mu jàngat ba juróom-benn waxtu ñu yeewee ko bu ñu ko defee boo ju muñu desee dañ koy defaat mu ne nag kon ni ñuy def mooy waa dëkk bi moom la bëgg ñu waajal ko dundal ko ci àggee waaye man nga def ko ci xewal yi itam nu ca waaye nga defee nga nu ca waaye nga defee na moom dana fàggu ay xewal waaye nit ñi itam luñ man nu may mën rek na ko defee ngir xewal doy te xewal itam daa mën a ñàkk mënta ñàkk ci ku ci bis yi ñuy def ndax kuy sàkku xewal da ngay joxe xewal moo tax mu bëgg ñu joxe xewal bu joxe xewal itam nee na buñ ciy soobu nañ fas ndax jumaatul tubaab yi la ko tuddee ajuma joo xam ne ajumay tuubaa la noonu la ko jàppee noonu la ko tuddee bu dee itam noonu la ñuy defewaat kon nag nee na bu ñuy tàmbali nañ fas dañ bu ñuy jàng cib nawet fas-fas yi ñu daan am waxaat nañu fasaat ko muy nawet bu teel bu tey bu ànd ak yërmande ndox mu barkeel ndox mu jàmm mu doy sëkk ba nawet bi bu am barkeel ñu mën a liggéeyal sëriñ bi fasaat yi tëjee magalu Tuuba gi ñëw mu magale ko ci jàmm mu dal mu tey te yàlla def ci jàmm te sëñ bi nangul na ko loolu ca def ak yéen jën ca am lépp sëñ bi nangu ko loolu bu koy kuy sóobu ci bis ba ku ciy dëggu na nga pas pas ñaari pas yooyu waajale ko ko bu ñu duggee ci bis bi nag ni mu bëgg ñu defee ko jox na sëñ Yuusu mi négal sëñ Yuusu dina gën ko leeral daara ji dañuy ñëw baasaat baas fañ na baas ci buntu kër sëñ Fallou fekk na yónni na ma sëñ Amsa dem naa ci léegi sëñ Amsa bu ñëwee ci baas boobu lay nekk waaye bas ba itam waa daara ji ñenn ñi dañ nekk ci kër sëñ bi jànge fa ca sëñ saalum sëñ bi jàngal ko sëñ bi nekk fa ñu des ñëw ci bas ba bi bas ba itam sëñ am sa fa lay nekk ak ñi durus ak kuréelam bay yëkkati waaye dana fekk kuréel daara ji ma nga fa bu ñu amee nag yeneen kër yi wër jamaa ji itam di kër yi sëñ Tuubaa kër ña waru sëñ Tuubaa gi kër gu nekk waa kër gi luñ man ci dundal ko ci base nit ñàkk fa di tudd yàlla di jàng ñëpp boo ànd dundal bis bi ñu defee ko noonu Baay Faal itam dañ nekk ca nekk ca penku jullikaay ba foofa la ñuy nekk ak la ko jege lépp ak la ko wër dafa la ñuy sikkaru nappee fa la ñuy toog buñ napp buñ soxlaa ci ñoom ñoo xam ne dañu génn ci toppatoo nit ñuy jàng ci xéwal yi ci joxe ndox joxe café joxe añ bu jotee ñu ñu ñëw nekk ci loola ñuy jàng ñoom ma ñeentaal dara loolu jàng alxuraan ji itam niñ ko daan defee ci yokki yi ci lañuy jàngee ndax bala ñu jot ñu defaru julli ñu jullee ba noppi bu ñu fa nee xewal fa la ñuy xewloo bu ko defee waa daal jiitam itam man ma ko waxoon bu ñuy jàng base boobu dañuy jàngee ak ci biir kër ga biir kër kër gu mag gi kër sëñ Tuubaa suñu am sa itam ci base ba lay nekk ak ñoom àndal fa la fa la ñuy dundee bi keneen ku fay fay nekk nag ci kër yi kër yi sëñ Tuubaa yooyu wër jumaa ji boo fee nekkee mel na yaa ngi ci barab bi ci barabu sëñ bi barab yi sëñ bi ñu bëgg ñu ko fa kon noonu lañ koy waajale ni ñëpp waaj nag bu ñëwee itam ànd ko yar ànd ak paseb ànd ak yéene ju sell ak yitte ju mat niñ daan waajal di mbirum sëñ bi ak niñ daan bi si noonu la sëñ bëgg ñu defee ko ni sëñ bi itam amul jenn yitte amul jenn xalaat amul benn pastéef pour dimbali taalibe yi bañ dem rek bañ jariñu ci bi rek ñu def bu sañoon taalibe nekk da nga di yëg sax fexe sëriñ bi ci ci gindigu ci sëriñ bi ci bañ a def ci sa xol bañ am gën bëgg góoru sëriñ bi ndax li ma waxoon léegi bu nekkee la ñuy waajale lu ñuy am liggéey booy liggéey wàllu yëngu te di ca ñaan am ca barke bëgg nañ nga ko war a delloo waaye sa xol moom na sëñ bi jiitu rek sëñ bi rek nekk ci ndax waaye ndax li ma waxoon leer na bëgg sëñ bi mooy bëgg bala nga koy mën a def da bëgg yàlla waaye ba ngay mën a am yàlla nag am sëñ bi kon ñooy ñaar dañoo mën tàggoo nañ ko xam te dégg ko te déggee ko noonu te jàppee ko noonu léegi nag nañ waajal bis bi ci wàccaay bi nag kon dinaa jox sëriñ Youssou lu lu luñ ci wax ci lu ci des lu mu war a mottali mu mottali ko lu ñu war a leeral mu leeral ko ñu bokk ci soobu bokk ko defe ne ko sëñ bëggee maa ngi ñaan nu itam noo am tafeex sëñ bi ba man koo defee ni ko sëñ bi bëggee ndax sëñ bi noonu la bëggal njariñ rek noon la bëgg ñu jariñu kon nag nanu sëñ suñu borom dimbale ci barke sëñ bi ban defee ko ni ko sëñ bëggee kon nag maa ngi maa ngi tàggu ñëpp di bàyyi sëñ Yuusu mu àggale kàddu bu ñu nappee ñu xam ne ajuma ji ñëw la ñu ñaari koy waajal ndax excellent mu noppi te rek la alterné te ak ajuma ñetti fan a fi dox ataar alba kon ñëw na ba noppi kon wàccaanam mbir maa ngi noonu wàccaa yooyu noonu yal na jëg tafeex sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi euh, naa sama kàddu yi li may jëkke mooy euh, ziar tey sant sëñ Cheikh moom sëñ Abdou Latif di kilifa ci man kon ndigalam moo tax may jottali ay kàddu te kàddu yi cant rek lay doonaat ak yeesalaat ak feddali ndax sëñ bi yàgg nañoo boole liggéey yu mel nii waaye naka jekk mu mët sëkk li mu doon nu itam nu xam ne suñ taxawaayu weesuwut taxawaayu murit bu laxasaayu laa yastuna laahu maa amarahum wa yafaluuna maa yumaroon nun bu sëñ bi xasee joxe ndigal rek ci loolu lañuy daal di jubali def ci suñ lépp ma bëggee ñu xam ne euh, lii tax a jariñu mooy teewlu gi teewlu gi moo tax waa Touba na nga xam ne képp ku yaakaar sëñ Touba dëgg la waa Touba la waaye Cheikh Mamadou Mountakha dafa am xaas bu mu am mooy lépp lu ngeen gis mu samp ko di ko def rek dafay loo xam ne nañ ko déggee dégginu xama aateykum rasulu fa xusuuxu képp ku ko jàpp foo mën a ne ci kaw suuf njëriñ la dina la fa fekk dëgg la waa Touba ñëw féete Touba war ko dundal muy ajjumay Touba waaye murit fu ñu ne ajjuma jooju mu fekk leen fa nañ ko dundal foofu def ci kem seen kattan ndax loolu du dara lu luy wane ne lii soppi jamono sëñ Tuubaa moo koy def ndax lii boo ko seetloo xam ne am na aw tur woo xam ne sax tur yi ko sëñ bi tuddee woon mooy sawratul bayda di li ñu tuddee révolution maanaam ab soppiku goo xamante ne lépp day yéwén lépp day rafet lépp day day day day day leer nañ te deret du tuuru xat du damm loolu nag sëñ Tuubaa rek moo ko moo ko moo ko amal moom moo def liggéeyam bi ba mu sotti mel ni moom moo dem àndut ak kenn liggéey liggéey bi ba mu sotti bàyyee ñu ay ngànnaay yoo xam ne xasida yi rek dong yi ku ci góorgóorlu ci jàng xasida yi xamal ne moo féete kaw dajale armée yi ci monde bi yëpp ñu leen xeexloo ndax sëñ Tuubaa dafa gañe xare bi jox ñu xasida yi ñu takkook moom ci la suñu aaju yëpp di fajoo ci la suñu gàllankoor yëpp di dañee loolu kon di sàkk ay bis yoo xam ne dañ koy bari ndax ku ne xam na ne toll nañ jamono joo xam ne yàqkat bi di noon bi di iblis moom dafa yokk rythme bi mu yàqee kon moom yitteem daf koo yokk ci yàq yi kon sëñ bii moom sëñ Muntaxa bu yokkee yitteem ci defar gi ak di dajale ndongo yi ñuy tudd yàlla di di di di jàng xasida dafa dafa xam ne loolu mooy yoon wi ñuy may nu nu mën a mucc ci yàqu-yàqu jamono kon nan ko fonk rawatina nag nun waa Touba gii nga xamante ne euh, li wër jumaa ji ku nga xam ne ne daayira yi nekk Touba rek bu ñu dikkee ñu ànd duñu xaj sax ci penc bi day mujj sax am na ay penc ci biir Touba yoo xam ne dañ koy dundalee foofu ndax ajjuma dañ fay julli ajjuma kon war faa xëy jàng fa alquran jàng di fa di fa tudd yàlla mu doon loo xam ne kon sëriñ bi dafa dafa wane yoon wi mu tàmbalee ci jumaa ju mag ji waaye fépp fu ab taaliba ne dana fa ak danga naan sax fu laafub Seydina Jibril àgg ndigalam lii na fa àgg loolu yàlla suñu borom defal na ko suñu Muntaxa kon nag ñu ngi tàllalaat loxo ñëpp di déglu it lii sëñ Cheikh wax ne togg xéwal yi moom bu ko kenn jombale sa bopp ndax doonte ab super nga mën a togg xool foo xam ne ñu ngi fay tudd yàlla fi la gën a jege nga yóbbul leen ko loolu mooy liggéey bi njabootu sëñ Tuubaa gi it xam nañ ne ñi wër jumaa ji yëpp genn kàddu lañ am mooy kàddu sëñ Muntaxa mooy seen kàddu gis nañ ne saa bu ñu santaane bisub xasida nun yaatu gi ñu gis ñu amal nu ko ñu may na ko ak lañ ñu fay faggul ak lañ ñu fay defal loolu moom ku ne xam na ne kon ñoom itam kenn ku ci ne dongo ya fa nekk ak waa kër gi ak daayira ya ñooñu buñ ca jàppee foofu rek képp dina dundal kër gi loolu suñ ko defee dina mujj penc mi na mu war a riiree ak na mu war a feesee dell dinañ ko def te dina ànd ak dal dal gi daal mooy li ci am solo loolu kon mooy kàddu yi xam ne moom lay dolli sëñ Cheikh di soññaan nag moom waa Hizbut Tarqiyyah nu xam ne nooy soldaaru bis bi soldaar yi moom suñ buñ tal dara fii ak al ajjuma nu fexe ba dara bañ a ci sunu wàll ci baas yi ñu war a def ci sonorisation bi ñu war a def di woo tamit ñi nga xam ne naka jekk noog ñoom du ñu ñaar benn lañu dañu ci daan jàppale mooy ñi nga xam ne dañu daan indi seen i bâche ñi nga xam ne dañ daan indi tamit seen sono ak ñi nga xam ne dañu daan jàppale loolu ñu ngi leen di tàllaat loxo ndax bis la boo xam ne bu fees dell ak njëriñ la boo xam ne jëriñu rek mooy li ci sëriñ bi jublu yal nu yàlla suñu borom kàttanal ba nu am melo wu tax nu mën a jëriñu ci bis bi ci barkeb Cheikh Mamadou Mountakha te lim ci fas lépp moom mu ji ak yàggam fi jiitu ci euh, ci dara ji Cheikhuna Ahmadul Xaddim barke borom Tuubaa jërëjëf. jërëjëf euh, sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdou Latif ci kàddu yi leeral yu am solo yooyu jërëjëf itam. Serigne Youssou Diop jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah ci fàttali ndigal lu Cheikh Mouhamadou Mountakha di fàttali ne ndigal li ajjuma ji ñu jëm lay doon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai ak ajjuma ji ci toppaat di ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mai kon muy ñaari ajjuma yi nga xam ne ñoo sësaloo muy bii ñu jëm ak bi ci topp ñu fas ko yéene nag defee ni ko sëriñ bi diglee am ci yitte ak pas-pas fas yéene defee ko kem ni mu ko santaane di ñaan suñu borom ci barkeb Serigne Touba mu dajal ñu ci ak tawféexu Serigne Touba liñ ci def lépp itam mu nangul ñu ko te yàggal fi Cheikh Maodo mun taxaate mu ànd ak wér wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.